ngeen si biir réew mi wala a jot moo leen vidéo boo xam ne dugal xam nga xam non xam nga erreur bi am ci Sénégal mooy église yi jumaa yi kenn war koon tëj waaye kontaan na bi ñi ko defoon dem ba tebbi ko c'est bien médecins yeeg yëpp ñu ngi leen di jàppale di leen féliciter ak militaires yi ak policiers yi ak gardiens yi li des nag léegi Alla Dieng ina ko yeesal Pape Mody Ndiaye di borom xam-xam bu mag professeur Malick Ndiaye nee na li xew tey nañ ko def Serigne Touba ku ko gëm Alaaji Malick ku ko gëm ak euh, Serigne yu baax yëpp da nga koy jëmal bis dañ koy jëmmal jëmmal ko nag lan la ñuy wax opération Chifaay Matlabul Chifaay moom moo yore wér nit ak xolam ak xelam kon nag nañu góorgóorlu rek ñu xam ne addina bi Sénégal li fi nekk ci xam-xam ak ci mën na dimbale addina bi ba defaraat ko loolu nag mooy Masalikal Jinaan waaye danañ ci dellusiwaat Masalikal Jinaan mooy solution mondiale universelle ci chifa yi am yëpp moo tax ñun ñu ne li am solo mooy chifaay min kulli daa kan du rek virus bii de déedéet daa yëpp nañ leen daaneel waaye pour loolu nañu delluwaat ci liñ maa ngi jàngal li ñu sëñ Tuubaa jàngal Masaalikal Jinaan kon du pour rekk di waxtaan rekk ak di julli déedéet pour jëf la ndaxte jullit kenn waxu la rek ngay nekk fii di julli rek laysal birra an tuwallu wujuhakum qibla al mashriqi wal maghribi déedéet da ngay jëfe wal muufuuna bi ahdihim ida ahadu wa saabirina fi l mahsaay wa daraay <laughs> ulayka alladi sadaqu kon bis ni dañ koy jëmmal kan nag opération Chifaay Matlabul Chifaay Matlabul lépp loo xam ne day aar d'accord naa ci waaye gouvernement bi li mu soxla tey ji mooy état d'urgence maanaam gouvernement d'état d'urgence xam nga lan mooy gouvernement d'état d'urgence mooy mu dindi gouvernement bi fi nekkoon nga xam ne gouvernement bi dafa doon préparer ay élections locales dafa doon préparer dafa doon préparer ay élections locale daf don préparer troisième mandat wala quatrième ñoo ñëpp bu leen dindi woon boobu la état d'urgence bi doon commencé. kan Sénégal li fi manqué mooy état de panique moo fi am état d'urgence bi commencé gul kon nañu góorgóorlu rek incha allah nañu góorgóorlu def opération chifa yi chifa yi rek ah takk weer. ngeen jot suñu vidéo nag foo leen si biir réew mi wala si bitim réew da mën a xam li nga xam ne